maa tëdd bis man bay nelaw rekk daa di tiit mu mel ne dama alxuraan man ñu fàtte ko ma laaj ko mu daal may wax ne man ndékki laa deful ndeleg-leeg ñu jox mas añ akas tip maraare ko ndadaa am ku daa ndékki ci man alifun banaas balaa bee jëm kaw tabur yàlla yóbbu ko sëriñ mbàkke madina ko daa def ci bis balaa njël mu jàngub kaamilam nag ba sëpp ko sëriñ mbàkke daa def alxuraan muy ubbi waxam balaa xëy waxam nit faw kaamil mu jàng ko gannaaw alxuraan lay fonk def ko ni ab dundam xasaa yi di ñii ko i jàng sëñ bàmba sédde ko gannaaw alxuraan lay fonk def ko ni ab dundam xasaa yi di ñii koy jàng sëñ bàmba sédde ko ku dib jàngkat boo xam ne siiw na te am xorom mbiram yépp daf koo jox sëriñ mbàkke dénku ko sëriñ seexloo suñ wadd ak fallu njaaya ngi te ibra kebe xaadim kebe yew li maale ko sëriñ daam sek baay mustapha kebe madina sëriñ baara gay njaareem sëriñ ndam de doy na ko sëriñ bada njaay poofoon sëriñ mbàkke cuuna ngi sëriñ daam géy sëñëm di sekk limaale ko sëriñ mbàkke seen njiim jang matar géy ku baax a ngi ma jóob gay ko xam seex ibra ñaa mar de xam na ko sëriñ mbàkke géy mbaylooja alxaaji sekk ngi sëriñ njaga mbay ñaamar ku baax ñépp xam na ko أمرت ربي في الديون ولي كان بخيول إلى الجنان في الديون وكان لي وقدم أمام قلبي القرار ولي كان بالزلال وليس ينحو من اعتلال ولا ألاقي ندما أكرم ذاتي للجنان من لي طيب الجنان وقادني بلا امتنان مشاركا للقدماء أماني الباقي الحديث عن نهر معنن ولا شيء عمري ذكره حفيظ عصمت ممن ظلما قادر يا الله العليم فوق مرادي من علوم ولا لغير يظلوم وقبل ذاك استسلما قلت مدادي والقلام لمن حماني عن ملام ولي أفضل كلام زحزح عني الظلماء أحمد فاطر السماء ولا حمدا قد سما ولي مالي قد سما لي وطري سلما te kat baay bu baax ak maam du tee yàlla seggu ko te loo jëf ci duniyaa lu sew sew du sew ëllëg te kat baay bu baax ak maam du tee yàlla seggu ko te loo am ci duniyaa lu dul jaamu lool du tus tubaa ba nga fee buy moy am ko ba romb ko te kat fukk lay ful jaamu goo jaamu benn yoon ku sàggan la bennam nag di mat fukk déggu ko mu tontu sëriñ ndaam naa ko def naa ko fas sawar li feeg roogi wàccul doo ma man ma wàccu ko li lee ba muy ndaw nag ba doon mag jëful lu ñaaw te kenn mësu koo woo ngir layoo mbaañu atte ko te gëm ji mu am na ci seex Moodu Moustapha murit bu ko am ci sang faw mu yéege ko suma saana toog ak moom du wax benn baat du raf sëriñ seex la sëñ bay wax la muy wax mu wax ko ko ma wax la ci yërmandeem nga xam nag ni kee dëggal te moo gëm te moo doyloo boroomam te jaamu ko ma wax la ci yërmandeem nga xam nag ni kee dëggal te moo te moo doyloo boroomam te jaamu ko amul woon fu muy dencu mbayam loo ko gis mu bay da koy joxe lii ñor ren na yam ren ñu lekk ko ku jox yàlla mbooleem ay mbiram yàlla yor mbiram te ka tàggatal koy mbir yu bar nag te topp ko ku am ngor te am lislaam ne àddina jii du kër jëloon léppam ak ñéppam ni sëñ Mbàkke saytu ko sëriñ Baara Mbub laay wax rijaalu li yàlla wax ni laa tulihim bayxun ani sikkiri jëf na ko sëriñ baara mbuub mboolem jullit yëpp lay jëfal ma wax la ci mbaaxam ak tabem tun nga déggu ko añam bii bu teewaa nit ñi ñëpp ci bokk yam dañuy sukk ba mu xat léegi leeg sax ñu tàncu ko mësula xëy te làmbul poosamit jox ca suñ boroom jirim yee ñu di miskiin ku laaj lii tontu ko lu taw taw du tee sëñ baara jël addiyam ju mat yabal ndaw mu jox sëñ mbàkke doo gis mu manki ko sëriñ mbàkke mbuub yoon waa ngi waaxul tafarlu yow lu àddina nëx nëx yoon wi bul jumba wàccu ko ma andil xar baaxi sëriñ mbàkke ma dina nga far dar sa gimmiñ waaru loo bëgg ñaan ko ko ma andil xar baaxi sëriñ mbàkke ma dina nga far dar sa gimmiñ waaru loo bëgg ñaan ko ko sëriñ Mbàkke Jóob moom Mbàkke laay bëgg a nettali li tax tey mu man nii alxuraan nag ba bindu ko sëriñ Mbàkke moom baay moor mu dëeru na immile ki ñetti atam daa wopp bañ tiit ba sangu ko ba ñépp ne daal moom jërula yóbbu faatu na mu am mu am xel dal di koy góof ba indi ko ci sëñ Mbàkke Madina ba mu yegsee mu ñaanal ko daa di muuñ ne dana jóg bindal ma kaamil bayit ma ko te yow bu màggee nag ba kaamil ba sotti nag bu koy indi yéene ànd aw yoon mu jox ma ko te wallaahi ba mu koy yóbbu koo kee la àndaloon keroog waaja daa bég yuuxu daanuñu jàpp ko daqaar gii fi béyti am na ay mbóot yu suulu woon sëriñ Mbàkke feeñal mbóot ya bam leer mu génne ko sëriñ Abdoulaat moo ñëw ca béyteeg rakkam jabis sëriñ Abdou Khadir jàkka jee ngir ñu rëddu ko sëriñ Abdoulaat wax nag sëriñ Mbàkke Madina lu maam denc ab si gis ko lakkal lu xar ci ko sëriñ Bamba daf daa yàlla ci jàkka ji foo benn doj nag suul ko ngir def ko xàmmi ko sëriñ Abdou Xaadir it di sëriñ Mbàkke Madina lu baax lu mu jam jam jam sëriñ Mbàkke xam na ko ca saa sala baayub seexu naa daa di jóg taxaw ñu gas leen barab bii di sëriñ Bamba wan ko ñu ngay gas sëriñ bay teew bagas diir bu yàgg lool ba am waa ji yokkat naa dama foog ñu romb ko sëriñ mbàkke naa gas leen ku làmb sëriñ bi daj fa mu yeggalee kàddoom ñu daj doje génne ko mu doon fa sëriñ tuubaa giseeg yaa rasulullahi te gis na fa sun maam jaara kañ na ko bàkk ko mu daldi di ne fii nag tey balaa boor bi soxla ma danaa tabaxal sëñ bamba jàkkam ji jiite ko xam ngeen ne bii daal du gis maam di wokk ndong sëriñ Bamba fi nga koy féete mbaate nga bàyyi ko xanaa xam ngeen ni sët bii daal du gis maam di wokk ndong sëriñ Bamba fi nga koy féete mbaate nga bàyyi ko ba tey nag ci xar baaxi sëriñ Mbàkke Madina ci laa ma sol xam-xam ci baatin ma génne ko ma del si ci jagley seexu naa Mbàkke Madina nga xam ne li yàllay def li ndéef mën la yàq ko araf yépp siin moo ëpp lim ndaxte junni la sëriñ Mbàkke doon siin am ñetti siin ñu seq ko sëriñ Mbàkke mii daam ñetti seex yu ken amul ku sab nag ba am ñaar yet ñettee lamma fërte ko ni seex Bàmba mooy saamaam te gën ñépp yomb na yeneen seex yi ñoo yombul bu nees kees ma tudd ko ni seex Faatma taaw taaw ki tax mbedd yépp jub ki natt dëkku maamam bi ba mu jum mu bornu ko ku fiy tukki réew mooy dem da ngay sàkku fa am te Seex Gaynde moom day fab alal jëkku yóbbu ko te moo jëkk sos fii daa yëraat xettaliw jullit lu ñu am ci yi tey sant Seex Fatma war na ko ci lee nekk saamak ak fi ne xam ngeen ne yombatul fu nuy peese jëf Seex Fatma teew ñëpp rocc ko te Seex moom ñetteel mii am ko yombul ba tey sawaay sëriñ Seexu nam bëmbali maamam jësikku ko te Seex moom ñetteel mii am ko yombul ba tey sawaay sëriñ seexu na am bëmbali maamam jësiku ko cerey lay la maamam Mustafa daa teral ganam ku dem tey ca toolam yee bu ngoonee nga reere ko amul soxla ci wiisa du weesu ma diina ge du wax ci ay journal rojot benn tudd ko du màggal di def moom ay cérémonie officielle du publicité lennam seexu na Bàmba cir na ko doy loola buuram coow yi am moom yitteelu ko sëriñ seexu naam bamba di mbir yëpp naw na ko te day toppatoo ab taalibeem bis ba muy juddoo bu faatoo mu ànd ak moom ba ci mpax mu gunge ko sëriñ mbàkke madina fi am ñetti seex yi le ku am maam ni moom it mag ak doom ja ko ni seex Moustapha mel nag ci soxna sa soxna may du loolaa waral yaay toora xam lépp jàpp ko ni tóor tóor amay max naa ci ay xob la toora mel ci sëñ Mbàkke lim tóor tóor ci moom yàlla na meññ ko te sàmm njabootam gi ni tóor tóor di sàmme nag ba buñ dee jofal Cheikh Moustapha Mbàkke ràññi ko xanaa ku la réem ak Seexuna Saalihoo waral xanaa ku réem ak Seexuna Saalihoo waral Sëriñ Abdou Diop mii jiite sëñ Mbàkke séddee ko lamin taxawal fii doy na wax leen ci sëñ bi ñu xam nag ne moom sëñ Mbàkke ndendam gi seesu ko wa amaa ji yàllay wax ba yegg ci rabbi yi lu yomb la daa am kay feneen nag ma tudd ko naa naf sa moo ca tic sëriñ Mbàkke Madina fii ne ku dul moom bu jéggee xaafa yit naf sa tequ ko li tax ba sun jàmbaar ja seex abdulaat ne woon ku moom bu maamam del si woon foog mu xajji ko te sëñ Mbàkke mii nag moom bu sëñ Bàmba del si woon du yokk ci jaamam gi karandaamu wàññi ko